jërëjëf mbokk internet yi a ngi leen di nuyuwaat di leen ziar di leen ndokkeel del soit ak yéen ci beneen jotaayu xam-xam ki may dalal Cheikh Ahmed Khalifa Niass di sët ci Alaaji Abdoulaye radiallahu taala anhu di sët ci maam Khalifa di koo xam ne damay wax ni ba mu jógee Saalum man lañ ko tegoon samay loxo <laughs> keroog dama am client bu ko seddaan ne ma buur sëriñ bi bi ngay bi muy wax ci yow dafa daw ma ne ko day borom kóllëre di boroom xam-xam bokk ci ñi nga xam ne sagal nañu ma wax dëgg yàlla ak yonent bi ndax clients yi sama diggante ak ñoom alaax bi dafa rafet lu leen waaye def ci lu rafet dinaa ko yëg waaye lu leen waaye def ci lak sul noonu dinaa ko yëg may ñaan yàlla ci nii ma nekkee ak ñoom yàlla na sax keroog nag waxtaanoon nañ ci pom bi waaye doyul de sëriñ bi ndax gars yi fure lañ ma wooye buur mosuñu gis lu gën a gaaw pom bi man leen noobu pom maa ngi koy gëj a gis waaye danañu waxtaanee diggante Tapha Tine ak Balla Gaye 2 seetu ndox bi seetu suuf si saraxu ubbeeku bi danañu ko waxtaane Cheikh Ahmad Khalifa bu ngi lay nuyu bàyyi la nga nuyoog ñu lay seetaan ci biir Bprod Média waaw alhamdulilah alhamdulilahi rabbil alamin yaa himmata cheikhi uxduri lana bi haza almahdarin waltaxti fihi bi nazratin tati lana bi safari subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka anta alimul hakim rab rabbi sarax li sadri wa yasir li amri waxlul uqdata min lisaani yafqahu xawli mbokki jullit yi mbokk yi bàyyi xel site bu mag bi fa tabaarakallaahu fu ngeen mën di nekk ak nu ngeen fa man di nekkee rek maa ngi leen fay fekk di leen wax assalaamu aleykum di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen di am kontante buur ak mbëgte bi ngeen ñëwaatee fii fekkaat ñu fi ci jàmm ni ma koy faral di waxee rek parce que yàlla moo ne wa awfu bil ahdi innal ahda kaana masuulan kóllëre ëllëg yowmal xiyaam yàlla daf koy laaj te defe naa ne man ak yow kóllëre moo dox suñ diggante li ko waral mooy ni ma koy faral di waxee te duma ma dëñ di koy wax mooy sa tele bi laa njëkk a génnee fa tabaarakallaahu dóoru ñi ci sant yàlla bu baax a baax di wax ne ñëw ngeen seen kër ñëwaat ngeen seen kër ñu ngi leen dalal ci jàmm. Mm. incha allah di ànd ak yéen ci xam-xam. Mm. lu ñu ci yàlla may rek euh, ci wala lu ñu ci temps bi may rek incha allah ñu ànd ci yéen bisimilah. sëriñ bi Balla Gaye 2 Tapha daanaka jeex na. Mm-hmm. ñaari fan <laughs> waa làmb jooju nag. Mm-hmm. biñ fi ñëwee yoon bee waxoon naa ci. Mm-hmm. mais coppati ko am na ci. Mm. li ko waral mooy buur. yàlla moo wax ci alquran wa indahu mafatihul ghaybi laa moo illa huwa hmm. am na ci jaam ñi ñoo xam ne lu ñëwagul yàlla daf leen koy xamal hmm. man ci ñooñu laa laa bokk hmm. te bàkkoohuma ko nag mais dama koy sante yàlla waaye ñaari mbër yi am na ci koo xam ne rawxaanam ma nga aareel na jiitu na jiitu na ko beneen mbër mi ci boppam nag ca buntu arène nationale ba lay ay mbiram di yàqoo parce que jamono ji arène nationale bi miine nañ ko nañ ko buur hmm. man làmb làmb amaluma benn njëriñ wallaay dëgg la man ci samay clients yi yaakaar ma hmm. jox ma seeni i dërëm ak seeni ñaar dërëm ci hmm. ñoom laa tal ñoom laa focus waaye lii daf di loo xam ne yàllaa ma ko wan mooy ñaari mbër yi war a bëre am na ci koo xam ne aaron nasan ak kéem nu mu tëddati rawxaana ma nga aaron nasanal mais bi loolu il faut que nga doon cheikh bu yàlla may basira maanaam gis cheikh man xalifa jamono bu ci nekk ay seet yu bokkul da ngay seet ci ñu wàcce woon ci yàlla Idris di lu wér di fukki bunt ak juróom-benn di seetit ci ndox man seeti ndox bi moo ma gën a yéem waaw buur lii sama communication di ci sensé comme li ma ci daan wax rek laa ciy wax mooy yàlla moo ne wa ja'alna minal maa'i kulla shay'in hayyin ci noonu nag la ñuy jaaree ci seetu ndox mi lépp lu ma bëgg xam ci réew mi maa jëlale ci doomu aadama lépp lu ma bëgg xam ci réew mi bu ma sëggee fii wax la may wax jat li may jat yàlla xamal ko buur buur ñun ñun ñun ñun dañoo ci pépp xam-xam judd ci pépp wilaaya wallaay alaay laay maam rek buur sëkk borom Touba. buur seet bii. Mhm. defe naa ne jamono ji moo ëpp lu may seet. bëri na fa bëri naa façon seet nag. Mhm. mais seetu ndox bi ak seetu suuf bi. Mhm. moo ëpp lu may seet. mooy lan mooy bu ma xamee sa tur. xam sa turu yaay xam say at. bi xawlillaay wa quwwati dinaa la wax loo xam ne kenn du ko dindi. bu la neexee bu la boo ko bëggee dégg boo ko bëgg dégg. ku am looy nëbbu. wala ku am looy bañ ma wax la ko sëy mbir bu ma seetloo buur. ku am looy nëbbu wala nga am looy nëbbu say mbir wala nga nekk mu leer na la moo la liggéey mm. bu ma woo di ma koy di may seetloo parce que dama la koy wax mm. te fii laa koy jaarale waaye lépp nag mm. dama koy teg ci loxo yàlla wala taqulanna li i inni faa'ilu zalika qadan illa an yasha allah wallahi li tax may xam mbiri dafa neex yàlla wallahi azza wa bu ko neexutoon du ma xam dara ci mbiri doomu aadama yi waaye fii nag bu ma fi jaar ak nit sa tur sa tur yaay say at nekkal ci ay jafe-jafe te xam nga buur seet seet ñetti mbir képp la mooy li nga xam ne doomu aadama paase na ko bëgg koo xam wala li nga xam ne ñëwagul wala li nga xam ne toll na ci ñett yooyu ngay décortiquer nit ki ci seet bali linsaane ala nafsi basira doomu aadama bu ne yaa gën xam sa bopp dëgg la de nañ bàyyi naxante bi buur mm-hmm. te wax nit ñi réalité ma lii seen seet wax leen seen i sarax damay seet waaye ku ñuul ki ku gàtt ki ku njool ki ku nangam nangam ku nangam nangam yóbbu fit nit ki jaxase ko ba jaxase ko buur buur mm. ñun ay tappale dañ cee xajut li tax mooy mm-hmm. dafa am sama benn papa boo ne boo boo xam ne daf naan fen ñetti ñetti at wala ñetti weer mm-hmm. tey loolu rek doy ne misaal mooy ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci réew mi. Mm. di ar naa ko doomu aadama ana ñu tey. ñi ci bari ndaw nañu dugg gan bi. gis nga buur ci kaso bi. buur mm-hmm. lu ne mën nga koo tappale. Mm-hmm. mën ngaa tappale ba am oto. Mm-hmm. mën ngaa tappale ba am kër. mën ngaa tappale ba am moyen mais tappale ba am xam-xam mosoo koo gis. dafa sax. kon nañ jàngi xam-xam dimbale askan wi dimbale doomu aadama yi sonn na. bi ma ñëwaat ci pont bi noobu pont na. waa buur balaa mooy ñëw ci pom bi. ñu dem ci waaw wax nga dëgg ilmu ramli. ñun ñun xam-xam daf ñoo jaral. Mhm. lii lan la. lii ramlu la ay tomb. déedéet comme lii laa wax lii. suuf. la waaw. waaw <laughs> ah, suuf la kay. suufu xorondog la. ah suufu xorondog. suufu xorondog bi dañ ciy seet. Mhm. parce que minha xalaqnaakum. Mhm. wa fiiha nuidukum. wa minha nuxrijukum taaratan uxra. yàllaa ñu ko wax ci alquran. ci suuf la ñuy bind. buñ deexee tamit ci suuf la ñuy xotti dugal ñi. ci noonu lañuy jaaree ci seetu suuf gii nga xam ne moom ak seetu ndox bi xaw ma bu ci gën a wér ci man. ak xorndoom ni mu ni mu bari ay mbir lu yàlla dem ba tuddee ko ci nam li te te yemul foofu te gis nga suuf sii. Mm-hmm. danañ ci def cangat boo xam ne. Mm-hmm. cangat boo xam ne ci wàllu bayra njaay gisuma lu ko gën a gaaw. ku jaay nga jaay ku jaay nga jaay. force. est-ce que. <laughs> bilaay barke rasulaay man kii moo ma jommal. buur. nopp bi heure bu ma koy wane dama ci am fierté li tax mooy semaine bii ñi génn. Mhm. li ma ci jot ci ay message yoo xam ne. ma ne ci bari jaarale sama loxo gis nga buur lii lii mhm. ñetti fan laa la appal. buur yaay sama seede ci sëriñ bi bu la neexee li mu ko yónnee mën naa la ko yónnee riyaa ma ne la indi jox ma garanti naa ko. buur gis nga lii mhm. parce que nit ñi dañoo sonn li ko waral mooy da ngay gis koo xam ne dafay sëy ci kër. sëy fa ay at jëkkër ji am beneen jabar du mooyu ko wallaay moom coro sax coro sax. mu am ab gel kese. Mm. du mooyu ko dootu ko defal dootu ko jox. Mm. léegi ñaar ñooñ na nga fexe ba boole leen ba seen diggante ne loolu du jaamu yàlla. ah kay jaamu yàlla li ci gën a tuuti mooy julleeg wér do mm. am na xeeti xeeti xeeti xeeti jaamu yàlla yoo xam ne moo gën a gaaw. xeeti ibaadaat yu wér. yoo xam ne tey moo gën a gaaw buur. lii tey duma ko defal ku takkul nag. wala kuy fo. wala kuy caaxaan du la ko defal ku ma koy defal daf may leer ne kii kilifa responsable. parce que noom bi bu xasee jàpp saye moom la ñuy xar pom bi. buñ liggéeyee téere bi ñuy liggéey ba pare. Hmm. turu ki ñuy turu kiy nooblu hmm. la ñuy jël ak turu yaayam. Hmm. kam yi noblu turam ak turu yaayam. lii yemut ci jëkkër ak jabar kese. lii dafay dem ba ci entreprise. diggante patron bëgg sa patron jox la bopp. waaw kañ nga bëgg sa patron jox la bopp ah. Euh, sa njaatige jox la bopp yooyu yëpp la ciy dox lii boole. Mm. luy boole la. Mm. lii buñ ko liggéey pare fii la ñuy def téere bi suul pom bi. Mm. buñ suulee pom bi pare dafa am benn tur yàlla. boo xam ne dañuy adat tur yi. dana am lim bu mu ñu jox lim boobu la ñuy jàpp ci tur yàlla bi moom la ñuy liggéey ñetti fan. billahi lazi laa ilaha illa huwa. ñu kuñ ko defal lii ku ko am. demal yow ba jàpp toon yow duggal fu ne ci wàllu nopp. kenn mënuluma dara kenn mënumaa jàpp. dafa am ku ma ko defal fan yii mu ne ma biñ commencé liggéey bi ma ne ko bu ko woo nag mu ne ma sëñ bi man soxna si moom bu ma ko woon baadu ma ne ko maa ngi lay ñaan li laay war a suuli bu ko woo gannaaw daf laa bloqué bu ko woo ci beneen numéro te bu ko woo sa numéro. toogal toogal nga déglu ma. nga doyloo yàlla nga déglu ma. Mm. waaw fii la toog dafa toog soxna si bippe ko. te fii laa jaar ak moom. ci mm. kattanu yàlla. Mm. buur. nañ dimbale askan wi ci wàllum nopp. nañ dimbale askan wi ci wàllu ñaan yàlla. ah surtout suñu mbokk daam yooyu de sonn nañ ci lool. buur. Hmm. man li may wax mooy soxla bu narta faju du ñëw du yegg si ci man. Hmm, hmm. soxla bu narta faju du yegg si ci man. sëñ bi daj dëpp gi nag. saraxu aajo. man ci yow laa ko gisee. sarax bii de kese mbiskit. buur sarax bii ngay gis. ak ni mu yombee. sarax bii waxoon naa ko fii dinaa ko fi waxaat. matut mille cinq cent. te gisuma lu ko lu ko lu ko gën a gaaw ci ubbi doomu aadama. matul juróomi téeméer. déedéet damal fu ne génneel sarax ay millions gisoo dara génneel sarax ay junne junne yu bari gisoo dara ñëwal ma tegle ci saraxu deux mille cinq cent bi. juróomi téeméeri dërëm. buur lii du caaxaan. sa affaire ubbeeku ne kàccit soo amoon business mu daanu nga entreprise mu daanu nga jaaxle ñëwal. bóor li moo gën bóor li li li jamono ji li ma ci li ma ci defal li ma ciy dimbali ci ay doomu aadama kenn xamul nu mu toll mais sëñ biscuit bi naka lañ koy def ci borom aajo ji mbiskit bi hmm. ki am aajo dañuy xam turam ak turu yaay moom itamit hmm. dafa am lim yuñ koy compte compte doomi biscuit doomi biscuit yi la ñuy compte benn ñaar dafa am lim buñ ci soxla hmm. buñ ci paree dafa am kuñ koy jox mais dafa am nuñ koy joxee dafa am waxtu wuñ koy joxe lii sa mbir nay nat yow lijjante loo xam ne lijjante nga ay wa at wala ay weeri weer mënoo see jot ñëwal ma jaara yow fii. ñu xool ba xam. <laughs> waaye da koy jot buur kenn mënu la koo teree jot. est-ce que buur man dama am cër. ci ñaan hmm. yàlla. waaw war na. suñ maam Khalifa maam El Hadj Abdoulaye dénkaane na ko fukki at. allahu taala am na fan wa barakaat. <laughs> kama hadda ulfati mithla tibaa al xalifati la dal mashadil jumhuri aqiru amri bi taariqi chamsi baada dikri wasifati mm-hmm. buur mm-hmm. man dafa am ñu may yaakaar mm-hmm. am na ñoo xam ne buñ doo tiijaan man maa leen ko jox man la yaakaar ginnaaw yàlla semaine bii ñu jubli si am na si samay taalibe yoo xam ne dañoo dajale pour ma defal leen programme kon man dama wuteeg ñu bari du tere na nangul naa ñu bari waaye ne dama wuteeg ñu bari dama di kilifa di doomu kilifa. dëgg la buur. Hmm. ñaan yàlla daal li ma daan wax laa ciy wax. mooy dafa nekk loo xam ne xamuñ nu ñuy def suñ client yi ñu yaakaar. wallaahi ndeysaan ah bu ngeen noppee ñi eh, kàccoor yeeg wëy yi loolu nekk ci internet bi arnaque nit ñi te bu boobaa it di ngeen ci am part loolu kese ñu wax la waaye du leneen. Hmm. waaye ñaan nag métti ne métti boo xam ne man yenn saa nit daf may woo sax. wax wax waxee wax bu xaw a teggin mën na ko kiyal taxawal fi nga taxaw ma yónnee la sa xaalis barki démb am naa ci client yàlla doy na ma ci seede mm-hmm. man buur neexuma deret ci ñaan yàlla mm-hmm. moom da ñëw ak yar ak teggin amal dërëm sax ma jàppale la te yàlla tax yoral ay million nag ñëw ak xamadeeg yaradiku billaahi lesi du duma la ñaan mm-hmm. mu ngi noonu di Cheikh Ahmed Khalifa di suma xarit di suma soppe wax dëgg yàlla di sët ci maam Khalifa. radiyallahu taala anhu di sët ci Alaaji Abdullahi ah, kilifa wala kuy googu nga xamante ni que nekkoon na ci tarixa Cheikh. buur fàtte naa lii ma ci benn minute rek. sëñ bi li la lii karaw la karawu karawu gëlëm la. yenn saa dafa am jigéen ñoo xam ne rab daf leen sonal. Mm-hmm. am na ñoo xam ne bopp buy métti daf leen sonal. Mm-hmm. am na ñoo xam ne kumute daf leen sonal. umu umu am na ci. karaw gi buñ la ko joxee dafa am beneen sunguf bu muy ànd ak boo xam ne da koy suudoo. ñamal xool ñamal rek. ñamal xool am moom moom moom. aywa <laughs> ñamal rek xool yi si ànd. sëñ bi la nga waaw kay tàggatoo bi mooy ñi ngi gërëm ñëpp di leen ñaanalaat yàlla yéen tamit. yàlla yokk leen ci zahir ak ci baatin amiin wa di ñaanal suñuy clients yi ñuy topp safoo ñu yàlla dafa leen jàmm amiin ñaan yàlla réew mi yàlla daf fi jàmm amiin waaye combat bi nag maa ngi ci insisté insisté mm-hmm. mooy mm-hmm. promoteur bi ci boppam mm-hmm. na gën a ñaan lu yàlla ci bis bi bu dul lool buur yàlla wan na ma ci ay weerante yoo xam ne mën na yàq lu bari foofu laa ci yem. jërëjëf Niass wasalaam.